ayo di jumtukaay bii tax ngeen mën di woote Sénégal ni mu leen neexee ci njëg yu xéewale moo leen di may seen émission Modou Modou ci Touba Argentine TV. ah bu ko defee ñu ñëw ci ah, ñaareelu xaaju émission bi seen émission Modou Modou Serigne Bada Seck. Balla maa ngi tudd bu baax sëñ Balla sekk dama am nag doomu bàyyi bu bu nekk Sénégal bu tudd Bada moo tax ma ci insisté bu wax ci tur bi boo dee fi ngeen nekk tey ba doon ngeen fi lii mu doomu sénégalais bëggoon nañu xam jël génn gi. ci yéen ni ngeen fi nekkee ak it tey yan condition ci ngeen fi nekk tey jii ci yéen ngeen fekk si muy nasaraan yi man bët lañ leen di xool ndax it yéen ngi fi nekk ci dama euh, ko mën a wax ci tranquille wala. waaw ah, fii Cordovaare moom su bi ma rek suñ lépp sëñ bi ci lay tàmbalee ci lay yem ci lay tënku du ko génn Cordoba gii de jafe woon na lool njëkkuma fi mujjuma fi. waaye na ngeen yëg ni sunu sang yu tedd yii muy mbàkke mbàkke yi seex ak sëti seex yi waawaanam lépp lu takku ci sëñ bàmb rekk fépp fu ñu teg tànk jàmm rek a fay am fii nooyu toon de benn saaret laa njëkkoon a nekk laata may ñëw fii foofu it nooyu toon de fii bi fi waa kër sëñ yi dee ñëw di fi fekk lii moo nooyal dëkk bi lu fi yomb nit sëñ Bàmba ko jàmp jàppandalal kum fi jafe ci yow it ah, xoolal sa bopp de te xam ni maanaam yëfi soldaar rek la defarwaatal duggaat ci rang bi te nooy <laughs> te xam ne sëñ Bàmba mooy moo yor sunu lépp rek fii jafe woon na teg ci mbedd mi rek di jaay defe naa ne nit def na ko fi ñu daanaka sonn ca lool bala boo bu ko yeneen gars yi nangoo ñu àgg ci ñoom. fi ñu ngi sant sëñ Bàmba de. fi de sëñ Xalil moo ko nooyal. dëgg la si Baax yi ñëw na fi. fekk maan moom it maanaam gars yi kenn moom mën mënta taxaw liggéey boo maa ngi ca sama beneen dëkk bu ma nekk Carlo Paz dafa yëngu mhm. waaye Cordoba gi teewee naa fekk fi gars yi amuñu nit wàcc na teg ci buntu këram ñu ne ko laalil buntu kër ga mu dëkk jël naa ñëw lal ci biir dëkk bi ñu ne ko laalil na jóg chef du baaxe ba mu ñëwee dani maanaam jël naa mbedd mi xanaa xamu leen ni magasin yi yëpp yéen ko yu mujje ku ñu tere lalum mbedd <laughs> nga koy wax naan di joxeñ naan xanaa xamu ne magasin yi yëpp yéen ko yu mujje <laughs> loolu loolu boobu ñun xamuñu magasin de boo man mii sama place bi ma nekk sax yoruma maa ngi ak place waaye ci biir place su Feria laa nekkoon lu mel ni ay poste la woon nii waaye place bu moomal sama bopp yoruma ko kon ñaan gu nangu mhm. maanaam dara yëmul ak moom nan bàyyi xel ca waajlu la xeere minal jihaati a sitti wak feani laafaati fu ñu nekk sëñ bamba mooñ lañ lañ mooy moo ñu fa bàyyi moo yor suñu wërsëg mhm. moodu moodu amut ñaanu sëñ bamba gu nangoo nekk fu fi waaye maanaam ne waa kër sëñ bamba yi di ñëw ubbil leen seeni buntu keroog sëñ du baax ba muy de defe naa ni añ bin ko tegal sax dane maanaam yëg coono yi fi nekkee woon ca boobu jamono boobu loolu la fi fekk ba mu egsee ñu tàllal loxo yi mu daal di ñaan dañuy jël nan ok bii bi mu daal di jógaat ndax moom faj na suñu aajo looloo ko fi indiwoon <laughs> kon nañuy dalal waa kër sëñ Bàmba yi mhm. te xam ni ñun amuñu lu dul ñoom ñoom amuñu lu dul ñun bu ñu bew bu ñu naagu bu dara fees sunu bët gis ngeen tool yi nekk fii ñu ne Amérique latine suuf si safa ba fa barkeel loo sànni sax mu daal di sax ci saa si nañ ubbi sunuy xel te xam ni la waaja daan wax ni màggal de wala mën naa wax nag wax sëñ Blaat ba mu daan na wax ni eh, bésu màggal mooy suñu fête de l'indépendance kon tukki bu amee ñëpp di tukki ci barkeb tukkib sëñ Bamba googu xéewal di am ci barkeb ñaan gu nangu sëñ Bamba fu fu waay nekk rek sëñ Bamba nga fa nekkal waaye fu fu waay nekk rek na ko teg bët di ko xool te xam ne fii tooli sëñ Bamba la man de su doon mayin man am naa kàttanam lii sama yéene jël naa yori place fii di jaay weñ ak yii nii ñuy liggéey mais sëñ Bamba liggéeyam daa weesu yii daa weesu yii tool yi fi ne ñu waroon na ñu àgg ci yor ci ay hectares yu baree baree bare ku baax xam naa nag ma jiitu waaye loolu bokk na ci sama question waruñu rek yam comme ni nga ko ci lal ci mbedd yi dem ci fere ba ci sax lii dëkk bu ñu xoolee li nga xam ne ñun moom la ñu am formation ñu ci ëpp Sénégal muy wàllu mbay mhm. fii la gën a yaatoo noor ak nawet mën naa wax ni day taw fii la gën a yombe ak yeneen ak yeneen loolu it euh, ndax dafa nekk loo xam ne état def ci tëju ba sénégalais mënu ci jot wala it suñu xalaat ñu ci bari dafa eggagul ci loolu wala loolu jàpp nga ni war na a jàpp ni ci dëkk bi ba ci sax càmm gi bu ñu xoolee tey macha allah. yow yow xej na nag lu jot rek yomb lu jot rek yomb dañuy tàmbali nekk ci lii ñun bi ñuy ñëw dañoo fekk ñëpp di jaayi jaaro ñuy jaayi jaaro yàlla àtte ñu dem ba sénégalais yi ñenn ñi dafa yori nationalité ah, ñun ñi dafa yori kayit yor fi place yoo xamante ne si dafa ne ni lépp jàpp ni mi ngi koy jéem a teg ci yoon ci lu légal ah tool dëkk boo xam ne dafa yaatu lool àgg ci li may wax ma mën koo teg ci fu wér ndax waxtaan naa ceeg sang soo xamante ni su ma neexoon woo lim si seeni tur waaye jaru ko mètre euh, nu mu tuddati hectare fu boo demee ci gox yoo xamante ni xaalis bu bari lay jar waa yow mi Moodu. Mm-hmm. te xam ne da ngaa jóge fa nga jógee gën a sori. Mm-hmm. réew mi defe naa foofu lu fu fi bërëb sori sori. Mm-hmm. kon sori ga day des ci yow ba tey. nañ ubbi suñu bët. xool te xam ne machine yi jafewu fi xëj na tubaab si ñu naan tubaab ñu bari naan tubaab yi dañoo bon tubaab yi bonuñu dañuy maslanteeg ñoom rek ci àqi irham jamihal waraya ju sëriñ ba xool leen rek bind ji nga xamante ne nii moom la leen sunu boroom bind seen bopp jëm kaw seeni tànk jëm suuf sëñ Bàmba ne yaa maalikal mulki yaa man jalaan xawadin irham jami xal wara kon na ne na leen di xam ne ñun ñoo ñëw seen dëkk buñ bëggee li nu fi bëgg jàpp seen dëkk bii tooli sëriñ Bàmba danay baax lool ñuy maslaanteeg ñoom loolu dana yombal sunuy mbir sëñ Moussa Bassirou yàlla suñu borom yokki leeram daan digle saa su nekk ñu maslanteeg suñu ji kilifa yi nu mu tuddati jamono. waaw firiwul pour di politique. Mm-hmm. waaye di maslanteeg ñoom. fii amuñu fi waaw amuñu fi ambassade amuñu fi ma di ko waxat. Mm-hmm. waaye ñun suñu ambassade. Mm-hmm. xaw lii fu mu yegg kat. waaye ñun suñu ambassade. Uh-huh. bu fi amee bu fi amut. li mu leen di yégal ñun sëñ bàmba lañu gëm gëm gin gëm sëñ bàmba jël na maanaam ambassade Sénégal di nekk fii wala muy nekk Brésil ñu ni koy defal ak ñu di ko ñàkk a defal sëñ bàmba mi ñuy wakkirlu yaakaar ko gëm ko wóolu ko moom lañu gëm ndimbal yaakaaruñ ko ku ci kenn ku moom ñun murit ñi gëm yaakaar sëñ bàmba ca Sénégal ak feneen fu mu fi mën a doon ci àdduna damay wax ni contre ma la yow Macky de déedéet contre ma tamit benn politicien. Uh-huh. waaye ñun yaakaaruñu politicien sëñ Bamba mi ñu gëm. moom la yaakaar moom la ñu yaakaar moom la ñu wóolu moom la ñu doyloo ci lu mën a doon ñun mën nañu. Uh-huh. bu soobee sëñ Bamba loo xamante ni état senegal mënu xoolal exemple bu mel ni Touba ca kanam. ak tàmbali la yeneen a ngi ñëw. Uh-huh. ñun dañuy gis ni. suñu féete suñu wuute. te fan ko teg. kenn du ko dinti asitti rek wax fee ani laa faati <laughs> kenn du ko dindi kon waxuñu waxi daanu waxu ñu waxi ko ku umpale bu dee jàngi tubaab xam nañ ay lëf bu dee wëndeelu dox nañu diir uh-huh. ah du ñuy dof uh-huh. du ñuy dof uh-huh. mais seetlu nañ ni état yaa ko tudd léegi bokk na sax ci suñuy question seetaan gi ci wàllu immigré rawatina fii Amérique latine jafe-jafe passeport yi gis nga ko yàgg nañ ko jooy bi nu ñëwee yi daanaka quatre mën naa ko xam ne soixante-quinze pour cent sax euh, defuñu ko foofu it lan nga ci def appel. xam nga lan moo wér. Uh-huh. état Sénégal ak état beneen bu mu fi mën a doon. njëriñal àddina ak laaxira sëñ Bamba rek la nekk. xëy na sama répétition dina bari ci loolu ndax duma ko génn. lu ma mën a lay tënku. Afrique àdduna lépp man ci sëñ Bàmba rek la tënku état Sénégal liggéeyuñu maa ngi jéggalu nag liggéeyuñu daal ndax fii xëj na possibilité yi na am ñun amuñu ko waaye bu ñuy gis gis gisu boo xamante ni dañuy analyser ko rek ci li nga xamante ni lu ñuy teg ci yoon la état Sénégal liggéey ñu maa ngi jéggalu nag képp koo xamante ni da ngaa farak Karim ak wala ay makeek man musuma woote te duma leen wooteel man doxuma ci yooyu ki mën a dox ba ñëw fii indi fi boppam te passeport amu fi mu mën fee lijjanti ba yore boppam ay ay nationalité man sama passeport de jeex na te su ma bëggee dem Sénégal damay dem ndax yor naa fi kay yu leer naññ. Mhm. yoo xamante ni sama nationalité su ma neexee dem jëli ko su ma neexee jël sama documento bi ma yor nga xamante ni moom laa yor passeport étranger jaar fii dem Brésil gee ñu defal ma visa ab Sénégal ma ne cëpp Sénégal heure ma neexee ma dellusiwaat kat ndax fi tooli sëñ Bàmba la yoo xam ne danaa ko fi liggéeyal moom laa fas yéene moo ma fi bàyyi. Mhm. sama gis-gis àgg na ci ni maanaam dañoo waroon a mën a am ay tool yu yaatu di fi bay muy meññi ñuy yeb ci bato muy dem Sénégal njaay ceeb di fa yomb diw di fa yomb lépp lu fiy meññ di fa yomb ci barke Sëñ Bamba. ok bokkoon na ci suñu question li nga tudd affaire bato dañu gis ni fii bu ñu xoolee Amérique mala moo gën a sori yaakaar naa fii bu ñu xoolee Europe mhm. suñu mbokk Sénégal yi ni ñuy importé ay conteneur muy dem wàllu oto yu demee noonu. dañu wax ne mën ak yow ku am xam-xam nga ci dëkk bi moo tax it macha allah naa ne laaj question boobu dañu gis ni boobaag léegi gisuñu Sénégal yi di ci def benn effort loolu dafa mënul nekk wala it mën a nekk. lu mën a nekk la wala waaye lu ci nekk rek dañuy def ndànk-ndànk bañ a yàkkamti bañ a yàkkamti moyens yi néew na néew na ñu doon sagara sagari dongo yoo xamante ni xëj na sunu. Euh, jaa ngeen jëf bu ko defee kon euh, mu mel ni ñu ngi ci suñu jeexalu émission ñu bëgg nag euh, benn message boo xam ni da nga ci lare lu bari mën naa wax ni mu jëm ci état bu Sénégal mu bàyyi xel ndaw réew yi fii naka lan leen war a mën a doolele bu baax a baax ba li nga xam ne tey moo nekk fii ñu mën ko exploité mu del Sénégal mu jëm ci it organisation yu am solo yi muy gis nañu ni mbooloo yi bari na fi ci côté daayira yi ak yu ni mel naka la ñu war a mën a jàppoo it fii bu baax a baax ba dëgëral fa ay société tey yoo xam ni it état daan leen mën a jàppale tey ñu mën fi am teraanga joo xam ni daañu ko man di jël di ko yóbbu Sénégal ngir dafa lépp suñu réew bu ñu seetloo tey suñu bàyyi suñu maam yi bu yàgg ba léegi ñu ngi dem euh, ci li nga xam ne moom moo di réew réewi nasaraan yi di tukki waaye bu ñu xoolee tey daanaka lu ñu defal Sénégal tey loo xam ni ñaar ñett mën na fa toog di liggéey bu ñu xoolee mën naa wax ni gisuñu ko fa ci te yaakaar naa xalaat yooyu yëpp it bu ñu seetloo war na mën a wees fii ci côté yéen ñi nga xam ne yéen a nekk ñëw fii di gis li nga xam noonu la tubaab yi liggéey fi ñu taxaw tey ba développé seen réew tey ci yan xalaat lañu mën a jaaru ba dooleel Sénégal ci côté boobu laaj de am na solo lool am na solo lool waaw ah. dañuy profitoo sax ci occasion bi wax loo xamante ne lu nu ñor lool la lu ñu ko gën a ñor dana jafe ndax lépp rek dafay tënku ci liggéeyal sëñ Tuuba waaw ndax sëñ Tuuba moom kuy ñaan bay ñaanal réew ma nga dëkk ah? defe naa ni euh, maanaam nekk nationaliste bëgg sa réew de classe exceptionnelle maanaam weesu weesuwul loola ñun nag ñuy ay donga rek nag nga xamante kon fa sëñ ba gisee rek di ko ñaan ñun foofu lañuy ñaan yàlla tàbbi ca ah mu liggéeyaloo ñu ci te ay jumtuwaay yombuñu ca. am réew nag buñ ko yoree wax dañuy wax état euh, état Sénégal ci wàllu moodu moodu yi damaa gis ni utiliser wunu potentialité bi nga xamante ni moom la ñu am ci li ñuy tuddee jaspora maa ngi dégg saa su nekk ñu naan émission jàppale moodu moodu yi fii def lii walla def laa xawma sax ndax am institution yu taxaw dëgg-dëgg ci loolu am na wala amul mais résultat boo xamante ni jëm na ca yooyu de day mel ni kon doxalin leen ca war a jël des na état Sénégal na ubbi waat bëtam xool ñu moytu li nga xamante ni lépp day niru individualisme ak loo xamante ni ay intérêt personnel lay doon waaw ñu moytu ko ndax buñ xoolee ci ñi nga xamante nii ñoom ñooy chinois yi chinois yi ñoom fu seen doomi réew nekk seeni réew euh, ñoom chinois yi ñoo leen di seen état ñoo leen di jàppale ban fay liggéey di avancer ñu leen di finance Sénégal ñu am lu jafe ñu am lu jafe ay doomi réew yoo xam ne nekk la ñuy def bay génn di liggéey ngir dimbali seeni réew ñooñu dañ ko war a utiliser lu jëm ci feneen lu jëm ci loo xamante ni njëriñum réew lay doon jéggi li nga xamante intérêt personnel lay doon ma ñëw ndax bu nee projet sàngam pour Modou Modou yi am kër projet sàngam pour e, oto yi dugg yu yomb yu maanaam mën a dugg nu yomb Sénégal loolu man sama gis da koo jël ndax oto yu bari Sénégal kii am na kër. am na laa ba tey defuñu loo xamante ni luy jëriñum réew la diaspora ñu am ay nit ñoo xamante ci cadre daayira ndax sëñ Bàmba la ñu gëm moom lañu yaakaar moom la ñu wóolu ñoo xamante ni ci biir cadre daayira dañuy ñàkk joxe te yàlla rek tax ngir jëmmi sëriñ bi intérêt personnel taxul état fu mu nekk fu am réew ne am fa ambassade ci misaal bu ngeen nekkee Sénégal googu nga dem se euh, Espagne bi nekk biir Sénégal am nañ fa li ñuy wax attaché commercial boo demee ba États-Unis am nañ fa attaché commercial ambassade bu mu ci doon dañoo am attaché commercial bànqaas boo xamante ni bànqaasu commerce la boo xam ne ci biir ambassade ba dafaa nekk yor fa bureau di taxawu commerce réewam ca biir réew moomu état bi ci euh, ambassadeur bi ci boppam ci wàllu diplomatie dara bàyyiwu ko fa. ci réew mu mu ca mën a doon lu dul ci diggante état ak état kon diggante état ak état xarit amu ca intérêt rek a ca nekk kon bu état Sénégal jël naa sax amul àggul ci mën a am ambassade fii ci Argentine ni ngeen ubbiwaat seen xel xam ni li ñuy wax gasto wala maanaam ay frais def ambassade ak nangam da gën a am lu raw loolu da gën a am sëñ Bamba. ma dellu ci bayit bi ma ni waajub la xayra min aset jihaati asitti waak fiya anil afaati gannaaw ba mu dajee la mu daj lépp mu ñaan xéwal lu nekk ci juróom benn goxe adduna bi yépp rek suñ borom buur ko mut si Touba muy Sénégal ñuy taalibeem gëm ko yaakaar ko wóolu ko liggéeyal ko di sunu ndam tey ak ëllëg dund doomu aadama gàtt lool ndax fi nit ki di gane àdduna ah fa muy màggee bay xàmmee man ngaak mën a digga soreewut foo waay ma ne ma ne boo guddeewu fan ma ne dee ci topp leen simple di wax ne ko xam sa maam kay maamam <laughs> maam defe naa ni néew na wala kenn kenn xamu ko kon su dañoo néew doole lool ci li nu yéene te mbooloo lamu man lu kenn mën ñaara ko ko dàq na nañu utiliser sunu potentialité bi ñu am xam ne Amérique latine gi bay yomb na fi bay yomb na fi xëj na ni mu fi yombee yombewul ni senegal bu ne moodu moodu yi fi nekk nekk fii li may wax nag waxuma waxi daanu ku daanu ci saret wala ku umpale la muy wax ku dugg ci internet seet gox ci Argentine dëgg a gis ni fii ñu ngi fay luyee tool da nga seet ci partie bu retiré boo xamante ni la leen fay jaayee tool lu yomb la séerul yéen a may dégg ana lu ñun sénégalais ci biir cadre yi daayira seen état jàppale ñu wala maanaam ànd ceeg ñun ndax jàppale boppam dong lay doon ndax defuluñu dara ñu fexe ba man fii bay muy ñëw Sénégal ñu fexe ba ceeb di fa yomb ci barke Sëñ Touba ba diw di fa fekkente ni wàllu élevage sàmm ñu bari dañuy importe ndawal fu ñu koy jënd Brésil googa waa Brésil fu ñuy jëndee ndawal Argentine gi <laughs> dégg nga buñ ko fi jëndee ci wàllu affaire commerce dem def ci tampon Argentine ñeneen jënd ko foofu ñu yóbbu ko Europe wala ñu yóbbu ko Afrique wala feneen ak feneen ana lu ñun ci potentialité bi ñu am am fi diaspora mat fi mbooloo état Sénégal. ubbim xelam ci utiliser diaspora bi ci encadrer leen rawatina nag ci ka li nga xamante ni cadre daayira ndax suñ amuñu lu dul sunum réew am fay kër yu tege am fay étage takki aawo ki ñaareel ki ñetteel ki ñeenteel ceeb yomb senegal diw yomb senegal réew yi ñuy nekk lépp lu fi yomb jàppandi foofa bu nu defut loola defuñu fa dara defuñu fa dara nanu fexe ba fu ay moodu moodu nekk mat fa mbooloo de ànd nag te yàlla rek tax di ànd rek te yàlla rek tax rawatina ci biir cadre daayira yi nga xamante ne ñun ci lañuy yëngu association sénégalaise baax na lool dëgg la waaye man sama xel ak sama xalaat sama nangoo jëf sans intérêt personnel te soxluma ci dara lul ngërëm la sëñ Touba rek. cadre daayira na état senegal xam ni ku am lu mel noonu da ngaa war a xool noo ko jëfandikoo pour un intérêt collectif lu jëriñ Sénégal jëriñ Afrique yépp waaw suufu Amérique latine suufu Afrique defe naa ne bu suufu fii gënta yoo gën gën gën gënta nooy <laughs> mënta maanaam suufu Afrique gënu koo mën a nooy muy lu wér. may jéggalu ci cité kenn koo xam ne yenn saa yi dinaa koy cité muy Bokar Samba Diedhi mais amul fi kayit yi fi am ñun defu fi at yéen fi def kenn ku nekk xam ne ne moo daan importer le riz argentin ci Sénégal kon bu buñ fi nekkee doon fi mbooloo noonu ubbiwaat sunu xel yi àndaat boole sunu xol yi te yàlla rek tax ngir jëmmi sëriñ bi ñu nga xam ne moom lañu yaakaar mu yor sunu wërsëg waaw moo yor sunu wërsëg waq dex waa jël zina daamoo fii xidmati wahab lahum maaraamoo nañu àndaat te xam ni benn nit sama loxo bu tuuti bii néew na doole lool waaye bu ñu àndee xàccandoo di dóorandoo mën nañoo def loo xam ni fooguñu ko woon fooguñu ko woon nañu ànd te yàlla tax état Sénégal na ubbi xelam ci jàppale ñu jàppale goo xam ne jàppalewuñu boppam rek la jàppale ndax waxuñu ngir sunu intérêt personnel. suñu interpersonnel amul luñ ciy tiit ñu ngi sant yàlla bu baax di gërëm sëriñ Bamba mi ni yaakaar waaw kon nag asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ñu daaneel ak fii ñu nekk Argentine gis nañu ni defe naa benn at bi ñu amee njiitu réew bu bees ak ak tey lu bari it euh, soppeeku na fi ci sa gis-gis da yaakaar ni euh, régime bi nii mooy dàq bi passé wala déet. waaw wàllu régime moom wàllu politique. de pas euh, ci ci occasion bi sax moo xaale ko mosuma voté Sénégal njaay googu mosuma voté politique ci wàllu politique ñoruma intéressé wu ma man nationaliste laa ci nationalisme sëñ Bamba <laughs> nationaliste laa bu bëgg sama réew ci nationalisme sëñ Bamba bëgg gi mu bëgg réewam yërmande gi mu am ci doomu aadama yi ndax moo ne irham jamihal wara ñun état bu senegal lay tàmbalee teg ci état bu fii ñu nekk wala état bu fi moodu moodu ne bu état àndeek ñun muy Sénégal googu ñu bàyyi ko bu état bëggee xañ ñu suñuy wërsëg ci réew yi ñuy nekkit wallaay xasim kenn mënul ci ñun dara kenn mënu si ñun dara ndax dañoo tàbbi ci ñaan gu nangu rek ma dellu si ci asittiw ak fiaane laa fàtte bu ko sëñ Bàmba di wax boobu saay maam juddooguñu wala xëj na <laughs> ñu bari ci ñun maanaam juddooguñu mu ne xéwal yi nekk ci juróom benn goxu àdduna yëpp suñu boroom fàkk ko rek mu jëm ci tuubaa bu ko sooboon jinne yeeg malaaka yi def ko kon doomu aadama yi kéem liggéey jumaam ji rek mu yërëm ñu rek ñu di ko def kenn ku nekk di ci def bay sawar loo ci man nga def ko ci te xam ne sa ndimbal tey ëllëg ci la nekk maanaam lépp rek sëñ Tuubaa la état bii tey ci tey bu ne maanaam ki fi nekk ñu ni Macri turam boobu ñu di niru Macron ay boromi pexe <laughs> am déet sëñ Soyebu dégg nga uh-huh. man ay lu mu ñuy waaye ñori ñori pexe uh-huh. te sëñ Bamba mi ñu gëm yaakaar ko wóolu ko uh-huh. atqaltul nafsi wa jamii ahli fii jëy bi afdalil wara zil fadli fa wallahi la azim fam ñu làq loxo loxo loxo jotewu fa yàq yëgu fa kon amuñu lu ñuy tiit amuñu lu ñuy ragal li maanaam moom rek lañ teg bët te yërmande gi mu am ci ñun kenn amu ko kon amuñu ko ñuy tiit amuñu lu ñuy ragal day ñaan suñu delloo suñu noyyi ak suñu delloo lépp rek di moom di tàmbalee ci sëriñ bi di yem ci moom ku ñuy utiliser mu mel ni dañuy am xel wala ñàkk mu xel amuñum xel ñun instrument sëñ Bàmba la ñuy doon bu ndaw ci biir motooru liggéeyam bi nga xamante ne ba mu koy def le simple di wax ku toog ci wetam naan amin rek amu ko ñun dañuy ñaan rek doon lu ndaw rek ci biir moteur boobu di ñaan ànd kook suñu mbokk taalibe yëpp ñu raxasaat xol yi ànd ak te te jëmmam ji rek tax te xam ne yërmande ji mu am yéene ji mu am de gisuma ko fenn gisuma ko fenn kenn déggu ko fenn ñaan ba ñaanal réew ma nga ne wax dëgg yàlla ah gisuma ko ci keneen la mu daj moom dong ko daj ngir sunu njëriñ ñun ñëpp kon étape Sénégal nan moytu individualisme ak intérêt personnel ak maa am li ak maa man li ak nii laa tolloog nangam li fekk bàyyiwunu intérêt personnel kenn ku nekk la nga bëgg maanaam yilif ngir tur ngir daraja ngir pisotiyaar toog ci kenn ci kaw nappaaje ko rek jógati kee def nii maanaam avancement du am. avancement da am man de maa ngi leen di woo ci ngeen ànd ak ñun ngeen ñëw fi defi ab ambassade sax ne ambassade amu fi ah di defi fere di fay ay nit ay salaire ñu àndak ñun fexe ñoo encadré départ donte sax ñun su xëj na suñu xel daa màccul maanaam dañoo yeewut lool ci lu bari waaye ngeen ànd ñun ci àq liggéeyal sëñ Bamba ci àq liggéeyal Sénégal bu gën ko ànd ak ñun ñu ànd koog waaye kenn mënutu ñoo nax kenn mënuñoo sax nax la ñuy wax kenn mënuñoo nax ndax sëñ Bàmba moo fees sunu bët gis ñu lu dul moom état senegal afrig nanu faxe senegal état bi ànd ak dongay sëriñ bi woo ñu ci jàppale suñum réew woo ñu ci luy jëriñ fexe ceeb yomb Sénégal du yomb Sénégal bu ne Amérique latine gii lañ nekk ñu ni Colombie la poobar gën a yombe ci àdduna li may wax yëpp lu waaye mën a gëstu la xool ni kon li may wax lu te tege ci fondement yu wér la du waxi ku daanu ci saret dégg nga ñuy fexe ni Brésil nangam ñuy fexe ba yooyu di dem Sénégal Sénégal moom bés ba réewum sant la waxum réelal jinaane ñii du la sëñ Bamba wax sëg suur jàng yi sant yi daayira yi muy bërëbu santukaay bi leen li ci des ci àdduna yëpp tooli sëriñ Bàmba la nañ faxe ànd ak donga yi xool seen diaspora boobu muy seen potentialité personnelle boo xam ne yeneen réew lu seeni xel xel màcc màcc muy jéemu nasaraan yi lu ñu yeewu yeewu lu ñu am am doole amuñu lu ñu am ndax nangu nañoo liggéey te sëñ Bàmba rek tax te soxlawuñ ci lenn ndax lii rek moo ñuy jariñ lii rek moo ñuy jariñ kon asalaamaaleykum. allo allo allo moo leen doon may seen émission Modou Modou ci Touba Argentine TV. ayo jumtukaay jokkoo la bu ñu leen jagleel yéen moodu moodu yi ngir fu ngeen mën di toll di mën di déggante ak waa Sénégal ci anam yu yomb te xéewale jëfandikoo leen ayo application bi ngay télécharger ci sa téléphone jot ci suñu liggéeykat yi ñu installé leen ko ayo jàppandi na ci Argentine boo ci soxlaa wol Abdourahmane numéro téléphone am 112 747 22 21 wala nga woo Gora Seck ci 223 305 01 27 wala La Plata nga woo Ndiagaka wala Ousseynou Fall. 221 50 37 301 yéen ñi fare Cordoba te bëgg a jëfandikoo application bii di ayo wol son yu bu baax numéro téléphone am 351 801 23 95 yéen moodu moodu yi fare Brésil it fàttewuñu leen woo leen Omar Ndaw ci 119 869 482 96 ak application bii di ayo da ngay dégg jàmm di déggante ak say mbokk ci jàmm. Ayo. te dikk na